ubbeeku waaye tamit nee na ma wallu këyit moom yàlla may na ma ci lool loolu nag sunu mbokk yi bëgg a tukki ak ñi nekk bitim réew la soxal waaye tamit sëñ bi nee na ma maa ngeeg fas goo xamante ni moom commerçant yi la yitteel kon commerçant yi yëpp nañu daw wutali ko ndax nee na fasam googeekat ku mu ko jox jaay ma jaay ma dina la sonal waaye tamit sëñ bi nee na wàllu kaaraange yàlla may na ko ca lool ndax nit kat bu ubbeekoo faaw mu wut lu ko aar waaye tamit sëñ bi fàttewul góor xam ne dañoo néew kattan nee na am am na garab gu ca baax lool sëriñ bi nag dina yëngu ci tawat yi nga xam ne dafa sonal askan wi lool bokk na ci ndoxum siti hémorroïde ak yeneen tawat yi nga xam ne dañoo làmboo ak askan wi sëriñ bi nag ku ko bëgg gis wala nga bëgg a moom ni ngay def yomb na lool da ngay woote ci numéro bii ma lay waaj a jox 78 475 27 82 ma baamtu ko 78 475 vingt 27 82 képp ku jokkoo ak Serigne Cheikh Ndiaye Njare yal na sa aajo faju ñu door xibaar yi dooree ko ci doomu Sénégal bii di Pape Matar Sarr nekk ca Tottenham moom nag club boobee di Tottenham yokk nañu contrat ba kon nag kóolute gi ñu am ci doomu Sénégal bi tey jii lañu ko gën a dëggal yokku nañu contrat ci lu gudd lool ndax contrat bu bees ba mu fa am ci atum 2030 la war a jeex bu dara soppeekuwul kon nañu ko ñaanal mu bind taarix foofee ca Tottenham muy Pape Matar Sarr nekk gone gu footballu Sénégal am ci moom yaakaar ñu jugee ci Pape Matar Sarr ak contrat bu bees jël beneen doomu Sénégal di Iliman Ndiaye moom nag mën na am mu delluwaat ci Sheffield United doxal jamono ji nag ma nga Olympique bu Marseille club woon ñoo ngi koy bàyyi xel loolee sax ki ko dëggal moo di seenu président ndax président wu club boobee li mu xamle moo di moo ngi liggéey ci suuf ngir indi fa jour bu mag waaye moom nee na du wax dina ñëw am du ñëw kenn ku ne ci ñun na jëfandikoo xelam képp xalaat ni moom mii kat bis mën naa ñëw mu indi foofe Iliman Ndiaye waaye moom munul dëggal ni Iliman Ndiaye dina ñëw am du ñëw waaye mi ngi liggéey ci suuf kon nag soo moytuwul doomu Sénégal bii di Iliman Ndiaye dina jógee ci Olympique bu Marseille delluwaat ca Sheffield United ndax ki moom club boobee mi ngi liggéey lu rëy nee na ngir xaatimal contrat ab jour moom mii nag doxalagut ca Olympique bu Marseille te jamono ji nag bu ko club boobee amee ñu wax dara waaye mbir moomee dinañ leen ko toppal incha allah ñu jugee ci Iliman Ndiaye ak président wu Sheffield United te ki bëgg-bëggam jël doomu Sénégal bii di Abdallah Sima moom nag ma nga ca Écosse di doxal tey jii club ba mu nekk di Rangers dañu doon jàkkaarloo ak Kilmarnock duma ko ñetti bal ci benn doomu Sénégal bi nag dugal na ca match boobee mooy fukkeelu bitam nag ca championnat bu Écosse jamono jii ñu ngi toll ci vingt-deuxième journée maanaam ñaar fukk ak ñaareelu bëccëg mu senegal bii di Abdallah Sima nag ma ngi fay doxal nañu ko ñaanal nag jaloore jamu nekkee ca Écosse mu indiwaale ko ci équipe national bi ànd ak Aliou Cissé ñu dem ca Côte d'Ivoire doxal. ñu jugee ci Abdallah Sima ak i jalooreem jël doomu Zimbabwe bii tudd Tino Kadewere gone ji nag Olympique bu Lyon moo ko moom bu ñu sukkandikoo ci l'équipe jubo ci lépp am na ci diggante Lyon ak nant gone ji waa Lyon li ñu bëgg moo di abal ko waa Nantes waaye dina ànd ak option d'achat su fekkee waa Nantes meñcee nañu maanaam jëmbët nañu fulla ba des ci Ligue 1 bi dañu koy jënd ci waa Olympique bu Lyon jubu ci lépp am na ngir doomu Zimbabwe bi jógee ci Olympique bu Lyon dem ca Nantes doxal bu ñu sukkandikoo ci l'équipe ñu jógee ci Kadewere ak waa Nantes seeni bëgg-bëgg jël doomu Espagne bi tuddu Sergio Reguilón gone gi nag Tottenham moo ko moom able woon ko ci ca Manchester United loole la ñu mën a wax ndax waa Tottenham nanguwaat nañu ko ndax gone gi amu fa temps de jeu loolee bokk na ci li tax waa Tottenham nanguwaat ko bu demee foofee nag du fa toog waa Tottenham li ñu bëgg moo di able ko ci beneen club boo xam ne bu fa demee dina mën a football jamono ji ma nga ca Tottenham muy Sergio Reguilon xibaar boobu sa Athletic moo ko xamle. ñu jugee ci Sergio Reguilon ak waa Tottenham jël doomu Angleterre bii di Jadon Sancho moom nag bu ñu sukkandikoo ci Sky Sport waa Borussia Dortmund ñoo ngi liggéey liggéey bu rëy ngir dello si waat ko ci seenub club jamono jii ma nga ca Manchester United waaye kat footballut ndax moom ak Erik ten Hag du ñu jaaroo taal maanaam seen diggante rataxul dara loole bokk na ci li tax gone gi waa club boobee bëgg koo able wala ñu jaay ko waa dortu mun nag li ñu bëgg moo di ñu abal leen ko juróom benn weer te jamono ji nag waxtaan baa ngi jëm kanam bu baax ngir Borussia Dortmund abbu ko dellowaat ko foofee mu doxal muy jaydan Sancho ñu jugee ci Jayden Sancho ak waa dortu mu nag seeni bëgg-bëgg jël doomu Brésil bi tudd Andrey Santos gone gi nag Chelsea moo ko moom da ko able woon ca Nottingham Forest waaye nanguwaat nañu ko li ko waral moo di doomu Brésil bi amul temps de jeu ca club boobee club yu ko bëgg nag ca Angleterre bari na lool ca Premier League ba ak ca Championship ba bu dee ca Premier League ba moom club bu ñu naan Crystal Palace dañu koo bëgg ak yeneen club waaye Chelsea nag bëgguñoo sorko sorko ay mbiram même ñu koy waat dañu koy able ci club boo xam ne dina fa am temps de jeu te gone gi tamit Mauricio Pochettino mi ngi koy bàyyi xel dàq dàqul téye ko foofee ñu ànd liggéey ba saison bi jeex maanaam juróom benn weer ji des ci saison bi mu ànd caag doomu Brésil bi ñu liggéey moom Mauricio Pochettino kon mën naa am mu des foofee ci Chelsea muy doomu Brésil bii di André Santos nekk gone gu footballu Brésil am ci moom yaakaar xibaar boobu Standard Sport moo ko xamle ñu jugee ci André Santos ak waa Chelsea seeni bëgg-bëgg jël doomu Allemagne bi tudd Thilo Kehrer moom nag ma nga ca West waay club boobee delluwaat ca Ligue 1 bu France club bu ñu naan AS Monaco jubo ci lépp am na ci diggante West ak AS Monaco able la nag mu ànd ak option d'achat waaye option d'achat boobee nekkul obligatoire maanaam nekkul force su fekkee doxal na ci AS Monaco bu neexee njiitu club boobee ñu jënd ko ci waa West Ham jubo ci lépp am na moom ab défenseur la ay jamono nekkoon na ca pari muy Thilo Kehrer ñu jugee ci Thilo Kehrer ak wa AS Monaco wak seeni bëgg-bëgg jël doomu Bosnie bi tudd Krunić moom nag ma ngay football ca AC Milan club bu ñu naan Fenerbahçe nekk ca Turquie ñoo ko bëgg bu ñu sukkandikoo ci TV dello Sport waa Fenerbahçe def nañu ci gone gi trois millions d'euros waaye kat waa AC Milan ànd ak Cardinal li ñu xamal club boobe moo di trois millions d'euros moom